waaw euh, d'abord ñu wax ci maanaam euh, contexte bi contexte bi bi ñu fi dajale moo waral li li xew ba tax na donc ñu jàpp ni euh, loolu dafa war a firndeel ni lépp loo xam ne dafa aju ci waru way way laago war nañ ko gën a darajaal war nañ ko gën a jox importance ndax pour que ñu mën leen boole ci ñi nga xam ne ci population bi lañ bokk li li waral ñu wax loolu xam nga tey fi mu ne nii li ñu dajale mooy affaire u bët waaye yeneen xeetu way laago yëpp dañu am ay gàllankoor ci li ñu war a évoluer ci réew mi ba tax na donc ñu jàpp ni tey euh, boo xoolee fi ñu jógee ba fi ñu yegg si fii ONG yi partenaires yi yi nga xam ci bitim réew lañu jógee ñoom ñoo gën a sensible ci li jëm ci weeru way laago yi donc ñoom ñooy développé ay programme di wut ay financement ñëw di ñu jàppale ci loolu tey nag bi nga xam ne yàlla dogal na am na coppite bi ab ci réew mi di doxee jàpp jàpp nañ ni sunu kilifa yi tey ginnaaw bi nga xam ne nee nañ ñoom dañoo bëgg jubbanti te dañoo bëgg fexe ba lépp lu xaw mi réew mi da koy ittewoo ñu fexe muy jóge ci biir réew mi ci cadre boobu donc lañ leen di invité ci pour que ñu fexe bépp programme ñu ngi koy tëral ñu fexe sóoraale ci li nga xam ne dafay jëm ci way laa yi rawatina nag ñi nga xam ni tey yàlla dafa leen nattoo ñi nga xam ñu am ay problème mu bët li waral ma ni bët dafa am solo parce que wax naa ko ci tubaab xam nga la vue c'est la vie ndax dafa am benn woykatu américain bu ñu naan Stevie Wonder ci jamono dafa daan wax ni moom pare na borom alal la mais pare na pour jël alal bi ko yàlla baax yépp mu fay ko pour lan pour ñu mën ko ubbil bët yi ba mu mën jàkkaarloog soxnaam ak ay doomam donc loolu dafay won ni que daanaka bët donc lu am solo la beneen mbir bi ma ci bëgg a toll dolli mooy tey gis ngeen ni feebar yu mel ne glaucome mu ngi def ay ravage recensement yi nga xam ne moom la ñu mujj def ANSD wane na ni feebaru bët maanaam borom bët yi tey ñoom ñoo ëpp ci population donc 3 euh, virgule 7 pour 7 pour cent de population donc loolu dafay wane ni war nañu fagaru war nañu fagaru war nañu def ay prévention war nañu saytu aussi li nga xam ni moom mooy loi d'orientation sociale bi nga xam ne am na ay disposition yoo xam ni euh, dañ ci programme pour que ñu bàyyi xel lool mbirum prévention donc ci fànn boobu jàpp nañ ni réew mi su bëggee maanaam ñëpp bokk fokk ñu fexe euh, maanaam lii tax nit ñi bokk mooy ñu sóoraal mooy ñu jël vraiment des dispositions pratique ci wàllu financement yi de telle sorte que suñuy xayma programme yi nga xam moo jëm ci askan wi ñu fexe maanaam cëral ci lu am solo way laago yi rawatina ak ñi nga xam ni tey ñoom ñoo waral bis bi muy borom borom bët yi d'abord je vais parler du contexte qui qui est aujourd'hui la raison de ce prétexte je pense que euh, nous sommes dans un contexte de changement dans ce pays où des, des, de nouvelles paradigmes sont en train d'être posées. Et je pense que par rapport à cela, euh, la préoccupation des personnes handicapées de façon générale doit être prise en charge dans le cadre effectivement de l'autonomisation des personnes handicapées. Aujourd'hui, euh, nous, nous, savons que au niveau du Sénégal, euh, ce qu'on a mis en avant aujourd'hui, c'est en fait de, de compter sur ses propres forces. Le pays cherche à aller vers euh, sa, la prise en charge entière de ses propres préoccupations et son financement avec de, son autofinancement. Par rapport à cela, je pense que les questions du handicap aujourd'hui, pour lesquelles c'est des ONG, c'est des partenaires financiers qui prenaient en charge, je crois que désormais, au niveau du ministère des Finances, je pense que nous, nous devons penser à la maturation des projets relevant effectivement du ministère de, de, de la Santé et qui prennent en charge la préoccupation des personnes handicapées. Euh, il l'a dit tantôt, les gens mettent l'accent sur les, les, maladies qui tuent. Mais euh, j'avoue que, en fait, il y a euh, des, des, des, situations pour lesquelles que la personne vit, c'est presque le petit mort, si je peux m'exprimer comme ça. Euh, par exemple, si je prends la question de la vue, la vue, pour moi, c'est la vie. Parce qu'il y a un chanteur américain, euh, Stevie Wonder, qui disait Je suis prêt à payer tout mon argent pour qu'on puisse me permettre au moins de, de, retrouver la vue et de regarder, de pouvoir apprécier ma femme et mes enfants. Vous voyez donc euh, cette, cette, importante préoccupation qui montre que, effectivement, la, les questions d'handicap, notamment la, la, vue, est extrêmement importante. Parce que euh, si la personne est handicapé par soit la vue, soit lui, soit euh, une handicap, euh, un handicap motrice, moteur, déjà, c'est économiquement, il y a beaucoup de situations qui peuvent survenir au, niveau de, ses, de en charge de ses propres besoins, mais aussi au niveau de sa famille. C'est pour cela que je pense qu'il est important, effectivement, qu'il y ait une, euh, euh une application particulière en faveur de, de, de, de, de ce secteur-là pour que, en fait, que personne ne sente être mis au banc de la société. Et puisque nous allons vers l'inclusion où la participation de tous est requise, je crois que vraiment notre gouvernement, nos États doivent s'inspirer effectivement de, de, de, de cette euh, préoccupation majeure qui dit que effectivement nous devons tout faire pour qu'on puisse prendre en charge les préoccupations de tous. La participation de tous est nécessaire. Aujourd'hui, si nous prenons par exemple la vue, le glaucome, c'est une maladie qui est en train de faire des ravages. Euh, les, récents, les récents recensements de la population montrent que déjà au niveau statistique, les personnes atteintes de, de cécité ou qui, qui sont, sont, sont plus importantes que des autres types d'handicap. Donc aujourd'hui, au, au, au, niveau statistique, c'est 3,7% de la population sont, sont des, des, des, visuels. Donc ça veut dire que c'est une nécessité de, réellement de mettre en avant effectivement des, des décisions, surtout allant dans le sens de la prévention. Parce qu'elle est importante. Dans les décrets d'application de la loi d'orientation sociale, il est prévu effectivement des dispositions pour qu'on mette en avant la, pré, la prévention. Parce que, parce que les, on a l'habitude de dire mieux vaut prévenir que de guérir. Donc je pense que, euh, en tout cas, nous voulons qu'il y ait effectivement un système de financement innovant, comptant effectivement sur les ressources propres du pays pour qu'on puisse effectivement prendre en charge ces questions de handicap.